Tidiane aywa 7h40 euh, jot dem RFM ñuy Ousmane Silla. mon directeur euh, général de Dikk 8h ñu l'heure politique de lañuy lañuy tambalé ndax euh, ci réew mi démb daanaka moo ci gën a fës euh, ak Ousmane Sonko mi jóge woon tribunal ci àtteem ak Mame Mbaye Niang bi ñu tuxalaat mars euh, bi muy ñibbi euh, xët-xët yi ci yenn ci mbeddu Ndakaaru yeeg li ko alkaati ne par force fi ngay jaar mu bañ ñu toj wiital oto bi jël yóbbu déposé këram noo noo gisee yooyu fee xew démb bisimilahi rahmaani rahim vraiment mang ngi lay nuyu di nuyu auditeur yep di nuyu surtout sama population comme noo ko waxee man maay maire commune Kédougou di nuyu waa Kédougou Babacar gis nga man sama benn gis-gis laa si am euh, lu nga gis mooy loi mooy respect boobu war nañ ko am te sénégalais bu nekk war na ko respecté parce que am na ñeneen ñu nga xam ne ñu ngi koy emprunté donc suñu ko nee fii la war jaar war na respecté loolu parce que mom tey su mu naree laajte président Sénégal moom muy war na jox responsabilité boobu exemplarité boobu loolu xam naa ni tey waroon nañ ko am te war nañ ko gis malheureusement comportement yooyu war nañu ko dindi ci Sénégal te war nañ ko dindi ci leader yi ñoom ñoo war a joxe exemple bu baax a baax te dëmb nag gis nañu exemple boobu nekku fa donc ñu ngi koy ñaan ñu ngi koy laajte mu nekkaat ci dëgg bi mu ñëwaat ci nga xam ne ni vraiment mooy responsabilité bu personnalité bu nga xam ne ni war na ko am te loolu gisuñu ko d'abord mais est-ce que jaroon na bay toj vite embarqué nit kii dugal ko ci fourgon yóbbu ko yóbbu ko dem. mu bëgg génnaat itam pour dem euh, conférence de presse euh, ñu tere ko ko gazé ko. non loi loi la nit ki su walu respecter lu nga xamné ni war na ko respecté dinañ ko téré duñ ko accepté ci situation bu nga xamné ni tay dëkk bi soxna lolu ordre bu nga xamné ni war nañ ko am ñu gis nit ki ku nga ni bëgg ko def loolu dañu ko téré lolu man je suis tout à fait d'accord avec ça je pense que euh, malgré que situation bobu bon mënoon nañu baña egg fofu mais moom mii tey parce que moom moo def benn euh, situation bu nga xam ne ni tey porte nañ ko plainte donc war na répondre de manière paisible ñib siwaat këram mais su ko bëggul def c'est sûr et certain que war nañu euh, respecter loi bi te loi bi respecté nañ ko te maa ngi jaajëfal vraiment les forces de l'ordre parce que c'est ça qu'on attend au Sénégal aussi mhm. euh, li ngeen sëf wala li ñu sëf Ousmane Sonko bëriwutam àtte fii àtte faa Adji Sarr Mame Niang jaaral fii xëcc oto toj vitre loolu parce que gis nañ image à ni mu wëree euh, est-ce que xam ngeen ni euh, ñëpp a ngi ŋàbb Sénégal ci li xew démb euh, démocratie Sénégal loof na lool diggante démb ak tey. non démocratie Sénégal je pense que du loolu moo koy rof parce que lu ñu xam tey nit ki soo naree wax dara il faut nga am preuve soo amul preuve waroo ko wax te responsable boobu su ko defee donc loi warna na egg donc luñu gis man ce que je vois au niveau international tay nit ñi ñi ngi rafetlu luñu lu ne ni gis nañ ko mais surtout c'est par rapport à responsable yu nga xamné ni defuñu lu nga waron def donc man tay démocratie buñu wara war ci Sénégal mo ngi fi te président Macky Sall mo ngi koy def te dina ko def respecté te lolu c'est personne warul nek ko nga xamné ni vraiment au-dessus des lois té maa ci si rafetlu tamit euh, par rapport ak comportement yu nga xamné ni juge yi lu ñu si am euh, comportement Mame Mbaye Ndiam nga xamné ni vraiment moom euh, ñëw na porte na plainte laaj na ay preuves té mu ngi expliquer population bi lool tamit waru fi am donc ñu ñëw rek jiñ nit ki nga xamné ni def ko ou amo benn preuve té lool tamit war nañ ko bay té Sénégal instant bi réseaux sociaux yi dañoo bëgg a def lu nga xamné ni jugement place publique jugement place publique mo am il faut que ñu déglu juge bi ñu déglu justice bi ñu am lu nga xamné ni war nañ ko def te suñ ko défé ñun ñëpp ñu déglu lool motax man ma ngi rafet lu bu baaxa baax. image Sénégal ci lool yëpp nak non image Sénégal xam nga euh, image Sénégal différent la parce que image Sénégal gis ñu ne élection bu fi wara am dina am dans les normes débat war na am ku nekk mën na wax lu nga xamné ni am na xalaatam lolu moy démocratie lolu moy image Sénégal maintenant nak amna benen image bu nga xamné ni ñu ngi koy bëgg indi si Sénégal lolu war nañ ko dindi di saga ci internet yi di ñëw lu nga xamné ni waruñu ko def ñu koy def di di saga suñu kilifa yi loolu yëpp war nañ ko dindi donc de l'autre côté aussi nit ñi ñu nga xamné ne ni foo toog wax des situations yu nga xamné ni amul lolu war nañ ko bàyyi donc man maa ngi woote tous les responsables politiques yu nga xam ne ni kilifa yi ñoo fi nekk ñu jox exemple exemplarité bobu génération bu fi nek di ñëw mom lañu war am. Mhm. élection yaa ngi tudd élection xamnañ depuis demb kañ lañuy amal inshallah. élection fal njiitu rew élection présidentielle 25 février 2024 la ministère de l'Intérieur intérieur moo ci au communiqué gannaaw ba njiitu rew mi jëlee décret bu jëm te loolam euh, élection yoy Macky Sall da cey bokkam am déet. non Macky Sall Macky Sall une demande sociale. Macky Sall dina si bokk ku wax. Macky Sall dina si bokk pourquoi sénégalais yi ñoo ko. demande sociale bi nga ne. demande sociale sénégalais yi ñoo ko bëgg ñoo fi nekk di wax ni Macky Sall la ñu bëgg. yan sénégalais ñoo ko wax est-ce que ñu ëpp ci sénégalais yi la. waaw tous les sénégalais gis nga fii ñun ñoo fi majorité. majorité bi ñoo fi nekk ne Macky Sall su mu bëggee mu bañ a nekk président ñun ñun ñoo ko bëgg mu nekk président dina nekk suñu candidat te dañ koy laajte jarul muy dem campagne.

dem récupérer yu nga xam ne ni ay yenn benn bokk yaakaar ñu nga xam ne ni frustré nañu dem récupérer ñu nga xam ne ni tey gisuñu seen bopp loolu mooy suñu liggéey du nekk fii di toog di waxtaan ñu nga xam ne ni tey dugguñu si dëkk bi soo demee Kédougou soo demee Salémata soo demee ñeneen dëkk foofu ngay xamee ni Macky Sall lu mu nekk di liggéey mais nekk fii rek di saaga nit ñi di wax lu nga xam ne ni amul loolu il faut que gars yi arrêté ko ku bëgg a nekk président na def campagne am dem waxtaan ak sénégalais yi ñu bàyyi di toog fii di wax li nga xam ni vraiment jaaduwul. wax wax waxet bi bëri na ci yéen de xanaa 2024 euh, boo boo leen ne Macky Sall mooy seen candidat 2024 cinq ans après aussi tam ngeen bëggaat ko fee teg di. non gis nga 2024 laay wax. Hmm. man 2024 lenn la. président Macky Sall mooy sunu candidat te président Macky Sall incha sera le président du Sénégal Kédougou incha allah dimanche bii dinañ fa dem. dem benn meeting Macky Sall Macky Sall bu nekkee candidat hein, dëkk bi dina yëngu. non dëkk bi du yëngu gis nga nit ñi lu ñuy wax ni xam nañu exactement la masse silencieuse qui la plus importante ci Sénégal bi xam na nañu Sénégalais loolu la ñu bëgg soo gisee tey meeting yu nga xam ne nii Macky Sall mu ngi koy am Macky Sall waxugul dara. meeting yi da ngeen di fay gars yi dugal leen oto indi leen. loolu moom gis nga Sénégal fii ñëpp xam nañu ne kenn du yeewu le matin jusqu'au soir nga ne da nga koy fay ku fa ñëw ci meeting daf koo bëgg.

loolu du fay. Ah, donc il faut que ma ne 2300 lañu ñu ko jox 5000 kay mu ñëw. mais am journée. mais du fay loolu lañuy wax ni moy responsabilité ku ñëw ci meeting Macky Sall ñun duñu def comme ñeneen ni ku ñëw Macky Sall dafa xamné ni bëgg na ko te ni tey Macky Sall mo mëna nekk président du Sénégal te inshallah dinañ ci liggéey lumay ñaan rek sénégalais yi lu may ñaan sama euh, partenaire yi nga xam ni ñu ngi ci benn bokk yaakaar nañu concentré aussi objectif bi objectif bi lan la développement du Sénégal objectif bi lan la waxtaan suñu biir ba ñu ñu am lu nga xamné ni vraiment élection yi sans problème au premier tour dinañ am au plus de 60 pour cent loolu xam nañ ko mën nañ ko def donc Babacar luma lay né rek Dakar dem dik, moo tax ma ñëw fi mooy Dakar dem dik. donc Dakar dem dik lan la mais justement dañ leen dénk dañ leen dénk liggéey mel ni liggéeyu len nek fi di politique rek ak meeting di wot yaangi ni di waaj dem dem duggu ngir def ay yëngu-yëngu politique te ñu dénk lu am solo yeneen ministre ñi di gis tamit ñuy def ay conférence de presse seen liggéey euh, top politique bi. Euh, finalement li Macky Sall waxoon na euh, dafa samp gouvernement boo xam ne liggéey ko tax a jóg loolu yëpp amul politique rek ngeen def liggéeyu leen. non Babacar dama lay wax leen gis nga liggéey nañ koy liggéey résultat la tey Dakar dem dik, c'est plus de. 3300 salariés plus de 60 ans d'expérience aujourd'hui l'Union ñuy augmente ni taux de bus de plus de 28 en 100 jours Tay réduire nañu sunu euh, charge carburant consommation moins de 15 Augmenter nos nañu recettes plus de 45 Aïe chiffre le... soo gisee tey ay lignes. yu bëri loolu wax ñu noo ko defee. Euh, ay yokk yokk bis wa. yokk bis wàññi wàññi gasoil. wàññi gasoil. loolu nu ngeen ko defee. loolu mooy management et l' excellence opérationnelle tubaab bi loolu la ñuy wax loolu laa jàng loolu laa xam def naa ko si réew yu nga xam ne si tubaab bi su ma ko ñëwee def mun koo def. si xanaa gasoil bi dañ ko doon sàkkal pexe xanaa awul woon yoon. lenn rek la gis nga gaspillage baaxul lu mu munta am. Nous on a trouvé les raisons et les causes de def nañ ko ginaaw lolou tamit. ku ko def euh, ki remplacé moo def wala ñepp ñi jaar avant yow. non par par la même occasion ma ngi remercier directeur général yu nga xamné ne nañ fu fofu foofu ci Dakar Dem dik parce que sumay tok fi di la waxtaan ak yow euh, euh, grâce à eux lenn la lu ñu mën wax tamit lancé nañu ay lignes yu bari defar nañu ay ay ay fréquences yu ëpp yu nga xamné ni ëpp nekkoon nekkoon fi lenn la Babacar gis nga Sénégal gi si on veut développer il faut que nous développer suñu industrie il faut que nous développer suñu société suñ si liggéey ñu liggéey bu nga xam ne ni vraiment dañuy am ay excellence opérationnelle C'est loolu lañ nekk di def te gis nañu si Dakar dem dik tey maa ngi rafetlu si salariés yi surtout partenaires sociaux ñu nga xam ne ni dégg nañu leen fii ñu leen di ne non partenaires sociaux Dakar dem dik mais partenaires sociaux yu xarañ la ñun ñooy syndicat parce que man duma wax syndicat sax ay partenaires sociaux lañu ñu nga ni pour pour and pour Dakar Dem gis alamin dinañu tamit Macky son excellence investir na parce que mom déjà il avait une vision si lu nga euh, euh, transport urbain. investir na plus de 70 sur parc depuis 2012 lu mu fa def mu def projet bu nga ni plus de 1400 bus te dinaaw d'ici fin juin Inch'Allah, allah dinañu am plus de 300 bus. yu nga xam dina def interurbain te Dakar Dem dik du Dakar rek Dakar Dem dik Sénégal la c'est partout ailleurs donc dañu bëgg tamit interconnexion ci région yi incha mais boo leen yokkee ay bus euh, bo nek bo nek ci terrain bi tu ne le sens pas ndax yeen saa am na ligne yi nga xamante ne mën ngaa toog ay une heure deux heures temps doo gis bus. wax dëgg yàlla am na ay jafe-jafe yu bëri gis nañu loolu moo tax bu mu fi ñëwee gis naa ko loolu moo tax ñu ngi liggéey si bis yu nga xam ne ni am nañ ko di yokk loolu. c'est vrai tey satisfaction amul totalement mais liggéey bu ñu def mooy accroissement mooy amélioration yi te maa ngi ne Sénégalais yi nañu sàmm suñu bus yi tamit parce que à chaque fois suñu amee benn jafe-jafe rek nit ñi di ñëw di toj suñu bus yi xamal leen. ci melni 3 troisième mandat day toj ay bus. waaw mais gis nga euh, bus yi kenn moomu ko sénégalais yi ñoo war nañ ko sam té sécurité routière xam nañu la sécurité routière c'est très important té Dakar Dem dik musul am benn accident depuis 2017 moy ni que Dakar Dem que c'est la solution. pourquoi parce que gis nañu né ñun y a des conducteurs yi nga ni vraiment ils sont dans la démarche zéro accident té ñu ci c'est-à-dire que sécurité bi du lek accident yi mais comportement yi parce que gis nañu né comportement yi c'est les secteurs clés té vraiment la ma ngi rafetlu ci lool tamit té conducteur yi employé Dakar Dem Dikk di lan di né il y a beaucoup de perspectives positives inchallah le lu ñu def Sénégal lu ñu def Dakar ginaaw lool tamit ma ngi encouragé di remercier sunu ministre des infrastructures ñu nga amené un ay projet comme BRT comme. TER justement ci BRT bu parce que vous euh, len recevoir ay des centaines de bus euh, d'ici juin euh, sur un total de 1400 yi nga xamante ni yéen est-ce que BRT bi. Euh, du euh, wàññi chiffre d'affaires euh, Dakar Dem Dikk ci yenn zone surtout ci banlieue bi nga xamantene ne fa la BRT bi di jaar. non du ko wàññi c'est c'est des services complémentaires loolu la ñuy wax service BRT aussi il faut il faut daal transport de masse la mais transport de masse la dina am ay rabattement yu nga xam ne ni tey y a des zones nekkuñu fofu donc BRT TR ñu yéen TER baa ngi nii amu ay rabattement nit ñi waroon wacc ci TR bi jël ay bus dem dik dugg ci seeni koñ yéen defu leen ko boobu léegi lu mais projet boobu ñu ngi si te dinañ ko def avec rabattement bi am nañ ay projet électrique yu nga xam ne ni vraiment ay bus électrique la au plus du nga xam ni tey Dakar Dem Dikk am ko donc projet yooyu mooy projet structurant moom lañ nekk di tabax loolu président vision boobu la am je suis persuadé que Dakar Inch'Allah, d'ici quelques années dinañu gis changement ci transport urbain hmm. mais aussi interurbain bi ne parce que parfois. parce que justement 300 bus yi a ñëw ci 1400 yi ngeen jënd euh, Dakar région c'est ça. non non non Nous plus de 70 bus yu nga région dinañ ñëwaat am 77 bus donc ñeneen région ñi nga xam ne ni amuñu ko ou bien département yi dinañ ci amaat. parce que du du fépp ngeen di dem am na. waaw euh, région yoo xam ni. Sénégal dem dëkk du fa dem. loolu moo tax dañ koy doubler te incha allah Sénégal dina Sénégal dem di dina jëm. Euh, si Sénégal baa doo yóbbu ko Kédougou tamit. <laughs> waaw Kédougou nag sama dëkk la. Kédougou dama koo bëgg parce que dañ maa élire maire de Kédougou. Euh, vraiment maa ngi rafetlu di leen di jaajëfal si affaire boobu confiance bi. non loolu nag loolu nag liñ tere grâce yi nekk candidat la xam naa loolu tamit ci la non mais terewuñu ko gis nga euh, lenn la euh, dëkk lu ma xam ne ni vraiment yàlla lu mu bind rek loolu lay am te maa ngi rafetlu si concurrent yëpp tey gañewu ma parce que man maa nekk le meilleur ne yàlla moo ma teg foofu mais gis naa ni tamit ñu ngi siy liggéey donc lu may nee rek Sénégal gi ñoo ko bokk kenn mënu ko taal suñu kilifa yi lu ñu ñaan fii kenn mënu koo dindi nañu ñi taxaw di liggéey te jeunesse bi population bi président Macky Sall a confiance à la jeunesse parce que so gisee mu may teg teg dëkk euh, société bu nga xamné amna ay jafé jafé c'est très compliqué c'est une récompense à la jeunesse donc jeunesse sénégalaise bi nak comprendre nañu lolu ku tok fi di xalaat ni sénégalais yi jeunesse bi comprendre lolu du dëgg jeunesse bi bëgg na Macky Sall té inshallah allah dinañ ko won ci 2024 bi deux questions en une année trentaine de bus yi chef de l'état euh, njiitu réew mi réceptionné woon weer yee weesu euh, ak itam ci qualité euh, bus yi ndax ay king loo chaque fois mu da ngeen koy dañ ko doon jën du yàgg mu commencé panne pièce de rechange yi am problème. bisu chinois. waaw 31 bus yi gis ngeen mu ngi dem Sénégal dem dikk dinañ ko yokkaat président Macky Sall dafa am déjà vision bu nga xam ne ni balaa accident yi di ñëw dafa am vision interurbain ginnaaw loolu yeneen bus yi moo tax investissement bi. son excellence dafa non il faut que ñu am ay bus de qualité yu nga xamné durée de vie bi day yag lool motax ñu dem ci benn société mu ngeen xam ku nga xamné ni vraiment tay moy Iveco moy international bus yi baxna interconnecté bi. seen bus sen bus vraiment bo demee ci aduna bi gis articulé yi hein ay bus yu yànji mais yii ngeen di jënd daal vraiment. ay bus fu fëgg jaay la quoi bus bus yu ñuy jënd Iveco yi du biis fëgg jaay bus yu bax la internationalement Eco 3 moy ni que environnement.

aujourd'hui c'est ça notre responsabilité moy mm. lan nañu indi transport yi développer transport urbain parce que liguey na ci yoon yi yëpp tey gis ngeen ni Dakar gis ngeen fenen tamit mais je pense que lu gëna a baax tey sécurité bi te sécurité bi aujourd'hui Dakar mm. Dem Dikk mu ngi ci liguey te léegi question bu muju vraiment dix secondes euh, ñaata la seen car yi di verser bés bu yalla sak versement yi ñaata la tollu bés pat bés gis nga augmenter nañ buma doon ñu ngi doon verser l'équivalent de 14 millions tey ñu ngi verser plus de 25 millions par jour mooy ni que c'est possible. lool lool ba tey ba tey ndaw na. waaw euh, lu mu mënta ndaw mais gis nga amélioration te très important te dinañ yokk bus yi suñu yokkee bus yi dinañu verser lu bëri te luma bëgg tamit les employés de Dakar Dem Dikk gis sen bop te dinañu gis sen bop jaajëfal. jërëjëf Ousmane Sylla directeur général de Dakar Dem Dikk maire de Kédougou jërëjëf Georges jërëjëf soxna na ta ñu yéen waat jàmm merci beaucoup Babacar Fall Georges Déthié Diop ak Sen gan di ñaanal ngeen yendu ak jamm ak euh, programme euh, Radio Futur Media, ci kanam touti bu len faté amna focus culture buñ len leen ak Abdoulaye Cissé len ci andal euh, Souleymane Niang dina ñew itam ci jangat bi tay jilé mu fas waxtané ci faible taux de bancarisation Fi ci Sénégal dinañ dalal buñ ci noppé Malik Diop mom moy directeur exécutif plateforme acteur non étatique légui légui ñu jall ci xibaar yaatal ko Cheikh Tidiane Diaw Música